asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen nuyu di leen siyaare nu dikk ci xasidak muqaddamatul amdaax nu toll ci ñeenteelu bunt bi nga xam ne moom it buntum nuun la mu tàmbalee nabiyun lahu shahnun azimun mubayyanu huwa al mustafa al muxtaaru wa huwa al muayyanu dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa day ku yàlla solo day kuñ solo leeral nañ na luy solo ca ginnaaw waaye day ku rëy mbir lool te mbiram yàlla fesal ko bañ xam ne kii ku rëy mbir la muy ko yàlla tànn tataamu ko doon ko yàlla yëkkati ràññeel ko ci mbindeef yépp bañ xam mooy kan ak nu ko yàlla def nubuwatuhu qablal baraya qadin jalat lahu sabqu xiinal jaddu fi tiini yuxsanu nee na ak yonanteem ak nubuwaam ba ko yàlla waajee booba mbindeef amagut ba nga xamee ni sunu maam aadama mi ngi ci diggante ban ak ndox defagun sax ci moom ak ruux ngir mu doon nit lu jiitu loolu la yàlla jiitaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waajaloon ak yonanteem ak waajaloon ne yonent yi ñëw yépp moom lañuy ñuy xàllal moom nag bu ñëwee mooy tëj buntub yonente najiidun majiidun muusilun man lahun taxaa muallan wa mifdaalun wa muxnin wa muallinu jàmbaar la joo xam ne saa su ne mën naa woye loo xam ne keneen mënu ko woye ngir ak njàmbarteem waaye ku tedd la di koo xam ne nii képp ku ko jublu jëm ci moom dana la yeggale ca sunu borom ku yàlla yëkkati la ku yàlla feesal dell ak ay ngëneel la ku yàlla baaxe la ba mu mën a may nit lu ko giijal maanaam may nit bam doyal sëkk yàlla da ko koo baaxe waaye yëkkati nit ba mu fees ku ko man la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nifaali wa ibqaa'i wa fawzi bila anan bi kawni xadimal mustafa tatabayanu nee ne samay may man sëriñ bi lay wax ne man samay may ak samak des fi ak samak texe te dara du ci ànd ak coono loolu lépp mi ngi fese mi ngi leere ci doon gi ma doon liggéeykatub sallallahu alayhi wa sallam nasihatuhu fi sirri wal jahri lii badat bihi qaadili rahmaanu sitran yu xassinu waxoon na ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ku laabiir la mën a laabiire nit ñi lool di leen dénk lu leen jariñ daa mat na man mii nag maa ci raw ndax laabireem gim def ci man ci lu feeñ ak ci lu nëbbu mujj na leer nañ ñi ne moom ak laabireem lay wéyee ba fu ma yegg moom fa yeggale te ci barkeem nag la ma yàlla wammatale làqukaay boo xam ne dana ma aar dana ma seng ci lépp lu dul noona ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa daal sëriñ bi nee na ci la ko yàlla womatale làkkukaay boo xam ne dana tax lépp luy looreek lépp lu mu du ko gis mukk mukk mukk nawaytu rida rahmaani fi xidmati liman ila gayri naxwi saaqa man laysa yusinu mu wax ne liggéey bi nga xam ne maa ngi ci maa ngi koy liggéeyal yonante bi yonente bi nga xam ne moo dàq képp koo xam ne nanguwul dëgg képp koo xam ne nooyul ba wuy si santaane yàlla kooku yonente bi dàqal na ma ko mu jëm faneen liggéey bi may liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag li ciy sama yéene dama ciy wut ngërëmal yàlla maanaam sama yéene ci liggéey bi mooy sàkku ci ngërëmal yàlla kon noonu ngi am foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu